نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا Fall euh, yëf yi nag metti na mais dañuy sant yàlla ndax man mi wax ak yéen man laa ni genn wàll gépp ci sama kaw la dal ci sama famille la man sama doom des na si sama ñaari doom ñu ngi tëdd fii xaw ma dañuy dund xaw ma dañuy dee beneen bi mooy sama ñaari doom yi mag génn nañ ci àdduna ki génn te génn àdduna kër yi ñett maanaam daal Ndëngur Fall daal li wér te wóor moom si famille même famille génn nañu am na ñaan sa onze waaye nag man si li ma xam dix si moom génn nañu àdduna si ñoo xam ne si famille lañu ak ñi nga xam dañoo ñëwoon si ngénte li di ay xarit di ay kii métti nag fu métti yem parce que problème bi six heures la am six heures boobu ba léegi ñun ñoo ngi si àll bi sonn nanu ñu ngi si hôpital bi ñu ngi daw guddi di daw bëccëg ñi fur sant ni ñaan yàlla ñu fi des waxtaan naa léegi ak Mansour Faye ministre bi nu ñu mën na dimbalee suñu doom ñi fi des ñu yóbbu leen Dakar ñu jéem a leen sawi parce que ñoom ñëpp ñoo bokku ndey ñoo bokk baay génn kër ba fa juróom jógee kooku xam nga ne kër ga jeex na man mii sama taabu góor yi ngi tëdd fii ak rakkam benn rakk baa ngi tëdd fee génn na àdduna ak sama ñaari sama ñaari doom yi mag yoo xam ne ak sama benn doom mag boo xam ne maanaam daal mën naa leen daal ba sama jabaru doom sax génn na si àdduna moom Dakar la nekkoon man naa daal man sama kër moom. ci sama fay moom genn wàll ki jeex na ma koy sant yàlla rek ndax du nit moo ko def yàlla moo ko def waaye nag damay gëm yàlla rek xam ni yàlla moom su ma soxla woon jël waaye bëggoon naa nag wax dëgg yàlla man ma ma mujj leen ñu ñoom seen bopp man ñu mujj ma fi moo ma gën a loon xëy na nag yàlla moo doxalee lool am naa lu ma métti sant naa yàlla di julli si yonent bi di wax nag itam. di wax nag itam nañu nañu nañu bàyyi xel tëli bi nañu bàyyi xel tëli wax naa ko Mansour Faye nee naa ko lii xew bu fekkee ne dëkkul daañu gis leneen ndax réew mi kat fii mu toll nii dañ see war a wax dee gi bari na ñàkk tegin gi bari na te itam wax dëgg yàlla oto yu si bari boo xoolee genn wàll gi amuñu sax ay kay wala bu ñu amee kay itam amuñu ay pneu yu baax loolu daal laa doon jotal di ko wax nag di wax nag euh, waaw euh, dama fee am sama euh, jabar koo xam ne kii jëkkëram sama rakk la ñoo bokk ndey moom ci ñi faatu ci la bokk mu ngi tudd Soxna Mbuub dafa jóge woon Dakar demoon Ndëngur benn ngénte bu ñu ko ndayale woon mu ànd ak euh, ku ñuy wax Xadi Njaay ak doomam waaye moom ak Xadi Njaay ak doom ji des nañ ci léegi am na ñeneen ñaar ñu nu àndaloon ñoom it dañoo ay blessé ba évacué nañu leen dakaar Euh, juróom ñooñu moo ñoo ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sama rakku jabar jooju waaw waa mbir mi day moom xat ci suba rek lanu ko yëg euh, bi nu ko yëgee dem nan fa nemmeeku waaye yéeme na doy na waar ndax ba nu yëgee daal fekk nañu lu mat fukki néew ak juróom-ñeent yu tëdd ñu rangale ñu ni ci lañu faatoo bañ fa demeet kenn xàmmewul woon kenn ak kenn bi ñu ñuy euh, bañ leen indi hôpital laa ñëw hôpital di wër di wër di wër ba gis ko parce que sonn nañ ci trop sooba na nga ni parce que dafa am ñu ñu ngi ñuy évacuer Saint-Louis ñenn ñi bi ñu ñëwee fii ci ñi deseet am na jàkka yu ñu leen yóbbu fii ci biir dëkk bi xamuñu woon fan lañ ci nekk xamuñu woon deenam xamuñu woon dund na waaye gannaaw gi la ñuy soog am information ni ci ñi décédé ci la bokk euh, maa ngi fii nag pour fexe nu ma récupérer corps bi ak sama rakk bi waaw jërëjëf. inna man Ahmadou Ka. waaw Mbekkal Pël waaw sunu mbokka la sunu rakka la sunu lépp la Ibrahima Sow ah génnal àdduna waaw ci soba buñ génnee jàkk bi wajiif am ke wax ah horaire ngiik bi de daanoon sunu horaire la ñu naan ngiik jët kilomètre la ñu ne kam bu horaire ngiik daanoo am nañ problème ñu woo ñu woo mën ñu ko jot ñu mënut a jot ñuy woo mën a jot ñu déglu teel ñu ñu gis oto bi ni mu daanoo ñu xam ne ma jël oto ñu ñëw buñ tollee buñ dëggaloo ñu ne Ibra moom gaañu na bu yàgg bu gaañu na bu yàgg Ibra nag xale bu baax la woon julli la woon jaamar la woon ci këram musul manqué dara suñu élément la nag man maay sëriñam maay wilaasam maay wilaasam maay sëriñam du ko ma nangalu woon la man mënu ma xam ñun nag wéet nañu wax ñàkk naa da daganul da ngaa war a war a wax man wéet naa te na nañu nag waa Mbekkal wéet na waa Mbekkal Poul wéet nañu ah ñeent fukki waaw am na ñetti soxna juróom benn doom ak benn école bi mu ngi foofu doom yëpp dee dugal mu leen fayal xaalis daa bëggoon alquran ndeysaan goo dee ndax góor maa bi jàppale ko naka jàppale naka yàlla yàlla ma àjjana dañoo bëgg nag ñu jàppale ñu am ñu ñu jot suñu ni koor ñu dem loolu lañ bëgg nga jàppale ñu ah jot ñu ko jot nañ sol jot ñu ko ah nee na ñu ngi topp di lañ wax nee nañu toog xëy si dañoo bëgg ngeen jàppale ñun ñëpp ngeen jàpp bañ jot suñu xoor ñu dem loolu lañ ñaan yàlla yàlla na yàlla may àjjana xale bu baax la. dëgg la waaw ginnaaw euh, bi ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi am mettit mettit la vraiment bu rëy euh, nattu la itam bu rëy parce yaakaar naa di benn bakkan rek bu dem metti na surtout maaka li dem lépp ci ci nit yaakaar naa ni vraiment Euh, metti na te du du première fois itam yaakaar naa ni jamono yëpp gis na nañu accident yi ni mu tegalee donc li nu fi indi tey fii ñaari kasket la benn bi danoo dëkk ci dëkk bi bokk bokk ci dëkk bi mu nattu bi dal suñ kaw ñun waa Louga kon ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu war fee teew waaye beneen bi itam mooy dafa fekkoon ñu nekk ak xalifa bi du tourné ba mu ko yëgee mu ne nu départ leen léegi ngeen dem wax autorité yi wax itam waa Louga ni maa ngi ànd ak ñoom mettit bi di ñaan yàlla ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa euh, lii yem fi ndax metti na du yoon bu njëkk bi ñu ngi ñaan yàlla nag ci barke yonante bi sallallahu alayhi muy yoon bi nga xam ne moo mujj maanaam mu yem fi di wax ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen i seen i mbokk nañ wax inna lillahi wa inna ilayhi euh, te ànd ak dal te xam ni yàlla ku mu soxla da koy jël fu mu mën a nekk do fu mu mën a nekk itam da koy jël yàlla def na ni xëy na xam naa ni euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo jël ñoo ñàkk seen bakkan ci accident bi yëpp xëy na tey la moo doon seen bis yàlla boole leen ci rek ñoom ñëpp ñu dem di ñaan itam chauffeur yi nañu ànd ak dal di daw ndànk te xam ni ay doomu aadama la ñu yar ay ay ay ay ay nit la ñu yar la ñu yàpp donc nan def ndànk ci di daw ndànk di bàyyi seen xel itam ci seen oto yaa ngi dégg Euh, clients yi itam vraiment nanu bàyyi bu nu duggee euh, di bousculer chauffeur ba dootul xam lu muy dawal di ñaan état bi itam wax dëgg neex yàlla ñu wooye fal wooye fal lu bari ci kaw ci kaw ci kaw transporteurs yi mais itam transporteurs yi nanu xam ni nit ñee leen fi teg ñoom it ñoo nit ñee tax ñu nekk fi pour di leen yóbbu kon nañu ànd ak dal te juboo te xool nu mu gën a rafete ñu doxale ko di ñaan benn dernier message nag bi ñu ci sànni mooy ñu ngi ñaan képp ki nga xam ne yaa ngi tukki nga yor sa oto bopp ngay dugg transport foo mën a jëm na nga jël sarax génnee ko denc ko ba nga yegg nga joxe ko ndax sarax dana bari ci lu mu nuy musal waaye waaye dee leen génnee sarax sarax moo nuy mu ci bari nattu yàlla nag kenn mënu ci dara ndax yàlla nee na ida ja al qadara dahaba as-sam'u wal basar yàlla nee na bu may indi sama nattu doomu aadama dootoo dégg dootoo gis waaye daal wa bashiri sabirin alladi ida asabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon daal ñu ngi ñaan jullit yi di ñaan ñëpp nañ wax inna lillahi wa inna ilayhi te delloo seen xel ci yàlla jazakumullahu xayran mesure yi ñu gën a yokk li jug 5 heures du matin bi bàyyi 23 heures transport bi waaw xam nga mesure yu nu wax euh, ku mel ni man doo ci mën a doo ci mën a prononcé wu parce que euh, daanaka doo xam lan moo arrangé chauffeur yeeg lan moo arrangé euh, clients yi waaye daal li ma ci gis mooy gouvernement bi warul te brusquement jël ay mesures nanu woo secteur transport bi ñu xool ñoom li nga xam ni moo leen arrangé état bi xool li ci baax mu jël ko ak mesures yi nga xam ne itam état da ko war a jël te du laaj. te du laaj euh, chauffeur yi. vraiment bu nu nanu nanu waxtaan seen biir ba xool nu mu gën a woyofe nu mu gën a rafete ñu def ko parce que li ma leen di ñaan daal ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy diggante état ak secteur transport bu mu am xëccoo bu mu am werante parce que ay bakkanu doomu aadama ñoo aju ci ñoom kon bu mu am xëccoo bu mu am kii côté bu ne nanu xool nu mu gën a woyofe ñu def ko noonu Cheikh Sadibou Aïdara Muhammad Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الدير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعدته قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفسك الأنام والدهور عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفع عليك صلاة الله ثم سلامه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 şeveri